Anyways.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 cent quarante cinq mille francs xale bu jigéen bi nag nee bismu bis bu yëf yi di am faram bi di em job moo fa jaar abbu ko portable ne boobu sax mu ngi waaj a génn jëndi mu lekk ne ci noonu la em job ñëwee daa di koy abbu portable am ne ko def kee bëgg jël ay photo ndax portable am moo gën a sophistiqué ndaw si nee na mu abal ko ko ne bi mu ko ko abalee ba noppi ci law mu job génn bi mu toogee nag lu toll ci fukki waxtu gisul em job déggul em mu nee ci la jógee génn dem kër yaayoo mu Diop pour mu delloo ko portable am def nee naa sa grande surprise mu Diop ne ko bi mu ko abbee portable bi ba noppi delloo na ko ko nag mujj naa ci loxo yoon mu Diop corom Sidi yóbbu na ko ci yoon <laughs> ma ne baax na ci ay xale ndaw doxaanante rek ci wàllum abus de confiance waaye nag mu Diop lànk na ba tëdd ci naaj bi dee nee na yegul tinul te delloo na ko portable portable ci kanamu tribunal nag Aïda Kébé mi tantayef ba nee na ñoom daal li ñuy réclamer mooy seen huit cent quarante cinq mille yi portable bi di jar <laughs> waaw waaw yoon nag mu ginnaa daan e mu job mi nga xam ne at yi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñeent ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd teg ci alamaan ko huit cent quarante cinq mille maanaam njëgu portable bi baax na ci waaye nag Iba Mar Diop di avocat e mu Diop nee daal dossier bi li ci lëntëka lënt lëndam bari na moom daal nee na bari na ay lënt-lënt yu ci nekk <laughs> ma ne man sax damaa xamul ab xale bu 19 ans lu muy duggee ci doxaan bañ koy jiiñ portable moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca caaroy doy na waar ab xale bu jigéen la fa faram jàpp ma ne ci digg mbedd mi laa wax di ko dóor ni kuy dóor sa doom <laughs> ma ne baax na ci ñoom ma ne ci mbedd mi la ko waa ji arrêté bëccëgu ndara kam di wulli nit ñee mujj daw at leen ñàkk fula mbir mi nag nee nañu 31 décembre bi weesu la tàmbali waa ji daa ñëw kër xale bi fekk ko fa ci noonu la ko woowee téléphone it jotu ko sa waay mujj toog ci buntu kër xale bi di ko fa xaar bi ñu demee nag bàyyi booru une heure du matin ci seen ndawam si di ñëw mu daal koy intercepté mbete ku yor jabar daa di laaj ndaw si fu mu nekkoon ndaw si ne yaayam moo ko yónni woon waa gëmu ko ci la ko njëkkoon doore waa koñ bi ci boppam ñoo mujj génn daa di jàpp ndaw si dugal ko ci biir këram ndaw si nag nee nañu moom ak yaayam kotta dëkk ay locataire la ñu waaye ma ne nii la mën a demee ndaw si amul mag ñetti fan ci weeru janvier bi weesu nag boori 15 heures la ko waa ji dogalewaat jàpp ko di door ni kuy door sa hmm, ma waxaat ko baax na ci ma ne ba waa koñ bee génnaat naroon koo defanteeg waa ji hmm, waaye kii kay dafa xamat waaye nag ma am na lu xew de yëf ci duggoon daa ci des ndax benn fan lañ ci teg waa ji àndaat ndaw si ci digg koñ bi lëngoo mel ni mburoog soow oh mel ni ma ne ku ci dugg yaa ci des moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax anjaay mi nag li ko dal metti na ndax nigérien bi mu doon génnal di wuyoo ci turu Oria bu Evidence moo ko menacé de mort mu dal di tëb ci ñetteelu étage eskay ma ne xaw tuut mu ñàkk bakkanam li koy indi nag mooy nee ñu nigérien bi dafa dem ba découvrir ne ah Njaay daf ko doon trompé ak yeneen i góor infidélité <laughs> ma ne ko bari na ci nag nigérien bi di wuyoo ci turu Oria bu évidence mooy wax de ne bis boobu mer na ba fu mer yem taxoon mu mbéj coroom si di a Njaay mbéj bu metti <laughs> ma ne waxaat ko baax na ci ma ne ba léegi wax de nee na coroom si di a nekk nekkoon ci douche bi di sangu ci noonu portable am sonné moom ci boppam mu décroché daal di yem ci ab waay bi mu ko laajee looy doyee xale bi nigérien bi nee na waa ji ne ko a ah, njaay gelam la loolu yëpp nag oria bu ci kanamu yoon la ko doon waxee fi mu toll nag yoon mi ngi koy topp ci wàllum coups et blessures volontaires wàllum menace de mort ak violence et voies de fait dugg nga de tey nigérien bi nee bis bi anjaay di tëb ci kaw bi mais moom ci boppam def ko bëggoon a dóor waaye bi mu xàccee ba koy dóor loxoom sax mujj koo dal ab xaritam la dal buy wuyoo ci turu Stanley mais moom sax ci boppam bis boobu mujj koo laal ci la mere récupérer portable am daal di dugg ci méegam tëju nee na comme anjaay musu koo gis ci état de colère boobu ci la tiitee daa di tëb ci ñetteelu étage bi ci yàlla xale yi toog leen seeni kër seeni pooji nday baax na rek nigérien bi nag nee na métti dëgg la am bi mu découvrir na Andiaye daf ko doon trompé ndax génn nañu ñeenti mu bëggoon ko ba fu bëgg yem ma ne nag sénégalais yéen a ko def wóole dugg musiba rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax moo tax ma ne xale yi dee leen xool bu baax ci li ngeen di dugg waaye suñu jigéen ñi léegi fu ñu jot dugg nii rek mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen i xibaaru buzz